aousubillahi min sheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala sayidina walana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin mbokki yi mbokki taalibe yi yéen ñuy déglu ak dañu seetaan ñu ngi leen di te di leen ziar bu baax baax ci turu mboolem njabootu ngeen say sant yëpp nuyoo bi ak ziar bi ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu téwér Serigne Babacar si xalifa général de Tidianes di ko ñaanal tamit suñu borom yàggal ko fi loolu téwér ci ndigalu maam njeg Sey mu Louga ak Serigne maam Dam Sey mi nga xam ne moom moo mag ci ngen Sey waaye tamit ci ndigalul maam Serigne Cheikh Fat Ndiaye Sey mi nga xam ne moom mooy ilimaanu Ngeen Sey jataay bii li ko tax a jóg mooy woote bés boo xamante si ni Ngeen Sey sanc dana ko amal incha allahu taala mu nekk bis boo xamante si ni bisum ndajem famille la bis boo xam ne famille bi yëpp dañ cee war a daje incha allahu taala ca fa nga xam ne moom mooy ngeen say sanc incha allah bés bi nag ñu jàpp ko la 4 février incha allahu taala ca fa nga xam ne moom mooy ngeen say ñun njabootuk ngeen say sanc gépp ñoo fas yéene amal bis boo xamante ne eh, mi ngi tombe ak talaata incha allahu taala 4 eh, février fu ñu koy amalee mooy ci ngeen say sanc muy dëkk bi nga xamante ne mooy dëkku sunu maam Masey ant Kebe ak sunu maam Alassane Ngoone ñuy woote ci woote boobu nag mboolem ñunu nu bokkal ngeen say gépp rawatina it tund wi nga xamante ne maanaam moo wër ngeen te yàlla boole leen ci dëkk bu rafet bu yàgg lool gannaaw ci nuyoo beeg siyaare bi nag biñ ci jiitalee Serigne Touba Serigne Mouhamadul Mountakha ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak sëriñ sëriñ Ababacar si Mansour ak mboolem njabootuk Seydil Haaji Malick si gépp eh, ñi ngi leen di woo ci turu euh, sunu kilifa yëpp muy mboolem njabootu Ngent Seye gi ni ma ko waxee léegi rek la kaat la incha allahu ca Ngent Seye sanc bis ba nag euh, ci biir bis ba bu soobee yàlla fas nañ fa ne amal euh, tegu xeer wu jëkk ci béréb boo xam ne incha allahu taala dina yaatu lool ndax dana am ay néeg ngir ay dalluwaay danañ fa amalit incha allahu taala béréb boo xam ne dana jàngale alquranul karim ak majalis incha allah lépp it ñu koy def ngir dara jaale ko sunu maam monsieur Anta Kebe mi sancoon ngeen ak sunu maam Alsaan Ngoone mi mu àndaloon sanc ngeen ñu ci woo nag mboolem ñi nu séqal tund wa yëpp li ko tàmbalee ci kër mbay numbe sëy te sunu maam gallaay sëy nekk ca bopp ak sunu maam Sëriñ Ngeen sëy eh, ak mboolem njabootuk waa Xeerawaan Fall gépp njabootuk Jëmmooy Gay gépp ak mboolem njabootuk Touré Fall gépp njabootuk Caar Olof Caar Pël ak mboolem tund wépp cekkeen sam-sam ak cekkeen pël njare waqe ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ak mboolem juróom-ñaari njare yi wër njaambur yëpp ñi ngi wooy tamit euh, bokki balngeer yi bokki euh, kër njuga bokki kër sulayloo ñoom ñëpp bokki ngumba ngéewul ñoo ngi woo fu waay mën a nekk rek ñi ngi woo mboolem ñi cosaanoo ngen Sëy ngeen gu mag gépp rawatina Ceyeen Sëy Kër Mor Abdoulahi Sëy Yeddu Sëy Ndoj Sëy Cambeen Samb Jawar Sarr mboolem tund wi ñu wër eh, njaamur yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi eh, di soññit bu baax mboolem ñu nu bokkal biir Ngeen Sëy gépp fàttewuñu tamit sunu bokki njaañ yi ak bokki gerte ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo ci bis bi te li waral jataay bi ñu jiitu wax nañ ko léegi muy ndaje moo xam ne dañ koy waajal ñeenti fan ci weeru février te la ko tax a jóg lépp mooy jokk ak mbokk ak dundalaat ko euh, loole itam di lu am solo ndax suñu borom tabaraka wa taala moo ko digle moo digle ñu jokk suñu mbokk te rafetal ko loola moo tax jamono ju nekk ñu koy def na ko suñu mag ña wala suñu maam ye daan defee daan war ay fas di yendoo ko fanaan di wër mboolem tund wa mbokk ya ngir lan ngir jokk ak mbokk ngir xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko digle wante dig ca dige ci aw yiw ak tiyaba ak ngëneel ci ñëpp ñoo xam ne ña ngi koy jokk di ko dundal wante tam tere képp ku koy dog ngir eh, la nga xam ne suñu borom tëkkoon na ko ca Euh, loola moo taxoon mag ñi daa ko dundal guddi ak bëccëg jamono ju nekk daan wari fas di yendoo ko fanaan loola it mooy li sabab jataayu wala ndaje mi nga xam ne fas nañ ko yéene amal ca ngeen ngir bokk yëpp mën faa dajewaat ñu dundal mbokk gi wante tam fas yéene dundal dëkk ba ca na ko mag ña doon dundale te lépp di lislaam dong kon ñu fàttali nit ñi ngir xam ne daje la boo xam ne daal lépp ngëneel la lépp tiyaaba lépp aw yiw la ngir ay bokk yu daje euh, nemmi kontewaat euh, gisantewaat euh, donte jamono xat na wante ñu am bis boo xam ne at mu jot danañ man di daje foofa ngir bokk yi di waat ngir ñu gën a dundalaat mbokk ngir gën koo sàmm ca na ko mag ñi daan sàmmee démb ak bërki démb ci ndigalu Serigne Mahmoud Sey mu toog fi jataayu Serigne Dame Sey ak Serigne Ndiaga Sey mi jur ci xeet wi ak Serigne Dame Sey mi xalifa xeet wi ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant di leen yëgal màggal gu ñuy def ca ngeen sey di ko woote la 4 février ca ngeen sey sanc ci ndigalul Serigne Ndiaga Sey ak Serigne Dame Sey ah, bëgg nañ képp koo xane ne ki da nga sëtoo ci Moussaï Anta Kebe wala nga sëtoo ci Assane Fassar wasa wala Alassane Ngoné noo nga la ciy woo ak noo ci manti bokke moo xam ci ndey moo xam ci baay noo ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ku dégg suñ kàddu rek ñoo nga ca muy dëkk boo xam ne bi daal dëkk la boo xam bi lu ni mel kenn mus koo gis ndax juróom-benn nga fa tëdd diggante ngeen kër mbay di benn village juróom-benn yoo xam ne kenn ku nekk dem nga gànnaar fekk Serigne Touba te lañ fa jëlee Serigne Touba nee na bi may dikk jamono fekk naa lislaam defi sagar fekk naa ñu sant yor seen pusaak bañ di ko gaar kon dëkk mata dem a ngoog sanc nañ ko ba maam téeméeri at ku fa juddu tey góor buñ dee téeméer juróom-ñett fukki mën nañ alxuraan kon booba dëkk yaakaar naa ne ku ca dem la nga bëgg da nga ko am wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bés baa ngi noonu muy le 4 février 2020 incha allahu taala ca ngeen say sanc euh, bu ko defee ci kàddu soxna yi soxna Nayratu mi nga xam ne moo ko jiite ak soxna Fatou Seye ak soxna Ngay na ñoom ñu ngi soññi jigéen ñëpp ñu ñëw taxaw ci taxawaay bi nga xamante si nii moom lañ ca daan taxaw comme at yi nga xam ne moom moo fi mas moom moo fi a baax ci daayira Silatu Rahim bi nga xam ne si bi nga weer wu nekk dina daje benn ci kër mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te it tamit bëgg nañ comme niñ ko comme niñ ndax ku ne xam ne ne ngeen say sëñ dafa yaatu fu nekk mbokk nga fa départ bi kër maam daam Fatim lay doon incha allahu taala ak kër Baye Cheikh jàkk fi ci Corniche Guédé muy le 4 février bu ñu ca eggee incha allahu taala ñu wax tamit 7 heures na fi fekk képp koo xam ne bëgg ngaa dem ngeen incha allahu taala ñu ngi leen fàttali tamit réunion bi nga xam ne moom la ñu am weeru jot muy réunion bi ñu am euh, weeru dee bi ñu jëm ñu ngi koy defee kër Baye Abdourahmane Seye ñu ma koy wax Baye Abdou Maram Seye incha allahu taala le 25 euh, janvier 2020 kon bés baa ngi noonu ñu ngi ciy woo ñëpp bésu la boo xam ne jàng alxuraan ak fàttaliku ñaanal sunu wayjur nga xam ne ñoo jiitu ji waaye tamit li fi des ñu di ko sàmm di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu dimbali ñu ba dara du ci réer waaye tamit dara du ci ruur ñun ñi ci nekk di ko di ci yëngu yàlla bu njàqu yàlla bu njàqule wasalaamaaleykum wa rahmatullah listajib waltusafi qalbi wa nawya واسعا واعيا جميع المتون ولتجد لي بعصمة سنجاة من الأذى والفتون